loolu nag maa ngi dénk képp koo xam ne jigéen nga maa ngi képp kuy borom kër maa ngi lay dénk nga di ci fàggu di ko denc ndax jigéen ñi bu ñuy mucc li ñuy dal li leen di li ñuy daj métti na lool opéré yi métti na lool ordonnance yi métti na lool te yooyu yëpp it mag ñi daanan mucc ci seen biiri kër te kenn daawu leen yóbbu hôpital te genn lor dawuleen leen dab te jëfandikoo eh, te jumtukaay yu mel nii rek lañ daal jëfandikoo kon ñi ngi leen di soññ bu baax a baax ci ngeen farlu ci Eh, ndax ñu bari bi tabaski daaw jàllee dan may doon woo di sàkku naan ndax fàggu naa ko wala nangam ca daanaka lu mu leen xas ba laa biir ngeen xam ne njariñ la bu leen ko aj ci kenn na ko kenn ku ne aj ci boppam fàggu leen ko jigéen ñi li ñuy daj ci hôpital yi ngir mucc metti na lool ñu bari seen i bakkan nañ ciy jaaree ca lii ay xéewal la yoo xam ne suñ borom ñu ko baaxee eh, fàggu ci denc ci ab biron képp koo xam ne kër ga biire ma nga cay metti tangal jox ko mu naan bu ca yàlla àndee suñ borom mën ne koo saafara képp koo xam ne toll na diggante ba war a mucc tàngal jox ko ca mu naan donte ñaari gox de insha allahu rabbi bu àggee hôpital ba du fa taxaw waaw bu mu tax nag kenn ñàkk a yóbbu sa njaboot hôpital ndax eh, digaluñ ko digaluñ ko kenn waaye nag buy demit na nga yàlla fandoo lu mel nii waaw ndax wax dëgg yàlla eh, xéewaluk suñ borom la eh, res woowee di ne ci xarma am na sax ay njariñ yu bari waaye am na ci benn ci njariñ yoo xam ne baat bi ñuy wax mudd xaamataani wax na ne képp koo xam ne bind nga ko ca boo ko lekkee doo tàbbi kaso waxees na sax ne képp koo xam ne bind nga ko ci weer reso ba mu wow nga def ko sunguf képp ko népp nekk kaso soo ko tibbee def ko ci ñam su ko lekkee dana ca génn incha allahu rabbi am ñu wax waxees na ko der ba nga xam ne mooy deru xar ma nga xam ne dañoo baax ku fees mayee sab der mbaa nga sànni ko képp koo xam ne génn nga ko defar ko ba mu baax nga di ko lal toog ca di wird soo ca dee wérd mbaa nga tokkee di ñaan yàlla lépp loo ñaan yàlla suñu borom dana la ko may bant ya nga ko doon déndeet nga xam ne mooy ngay tàllale der ba ba mu tàlli bant yooyee boo amee jigéen juy fay mbaa gone guy dem mbaa donga buy daw ba kuy dem ku ne koo bëgg a téye xoolal juróom-ñaari tànk yu mu dox ca barab bam ba nga bëgg mu toog fa bant bant bu ne nga teg ko ci tànkam bu mu dox daaj ko bu mu dugg ca biir dootul génn dootul génn dootul génn incha allah ah, dootul génn ko